vrai que euh, na trop ñu leen di juger mais euh, gis nañ ni que ñu ngi poser ay actes euh, par par rapport aux premières actions nga xamante ni posé nañ ko euh, ban ban ban xalaat nga ci am ak ban gis-gis nga ci am. ben am na en tant que journaliste et en tant que sénégalais aussi am na boo xam ne au début dama leen critiquer ne non ben da ngeen pour changer régime changer doxalin wi dem leen ci. mooy l'histoire du euh, nu ñu koy weeti di xoolaat euh, ay audit ak yooyu début bi mm -hmm. mais quand j'ai vu ce qui s'est passé à Mbourkat ba président dem fa mhm. génn li ci nekk ma mhm. xoolaat ma ne attention ñii li ñu def nii euh, man pour man d'accord naa ñu auditer d'abord d'accord naa pour ñu xool lan lañu ñu yore woon suñu réew et en même temps ñu continuer seen liggéey parce que il y beaucoup de de prédation foncière ouais, ouais. financière mhm. ci réew mi yoo xamee ne faw ñu leeral ko mhm. et j'ai vu les actes qui ont été posés par le le président de la République j'ai vu un peu également ci doxalinam ak les les dignitaires religieux mhm. muy lu ma séduire mu euh, nit ki le président Bassirou Diomaye Faye j'ai vu depuis le premier jour ba ñu génnee kaso Ousmane Sonko qui s'est effacé nga ni c'est Bassirou qui passe ba bi ñuy génn kaso Bassirou Diomaye fay la ñu gis mais Ousmane Sonko on l'a pas vu. Mhm. parce qu'il ne voulait pas créer ombrage. il ne mhm. voulait pas nëbb mbiru Bassirou Diomaye Faye donc c'est un duo boo xamee ni jàpp naa ne bu ñu leen jàppalee tuuti. Mhm. je suis journaliste d'accord suis sénégalais d'abord. seen réussite réussite wu journaliste bi la réussite u sénégalais bi la d'abord donc bu ñu leen jàppalee tuuti te ñoom tamit ñu xool seen bopp ne nii dafa am yaakaar bu askan wi am ci ñun. Mm-hmm. donte du ñëpp ñu votel mais ñu ñu votel mm-hmm. ak ñu ñuy votelul war nañ def ba nga xamee ni dañ mën a defar suñu réew. Euh, moi je les attends au tournant je suis très critique. Mm-hmm. même par rapport ak seen liggéey moo tax yenn saay euh, xam naa ni ngeen baal ma yenn saay waa Pastef fii wala seen i. <laughs> mais <laughs> bëgg diw wala diw euh, sànni ma xeer wala saaga ma sax mais c'est pas. est-ce que xeer yi moo ngi dal wala dalul. déjà li ñu war a njëkk changer et à foog ñu jàpp ci loolu. mooy na gën a privilégier. Mm-hmm. le débat d'idées. surtout su ma joxee sama xalaat ne ni président su ma doon moom du ma doxalee nii nii lay doxalee c'est pas parce que dama bañ président c'est pas parce que dama bañ Ousmane Sonko. Mm-hmm. mais c'est parce que dama jàpp ne war naa mën a jël sama idée. booleeg idée ak idée wu ñeneen mu ne naa jël yëpp dugal ko ci benn panier seet bi ci gën wala defaraat ko tëggaat ko ba génn boo xamee ne sénégalais yëpp a koy moom je ne critique pas pour critiquer mm -hmm. je suis journaliste je passe sur les faits lii waroon na am amul li def ngeen ko war leen ko waroon def mais c'est pas pour sànni xeer c'est pas parce que dama bañ diw wala mais c'est plus pour mhm. euh, ñu jàppalante parce que bu baaxee Sénégal la baaxal bu bonee tamit Sénégal la bonal mhm.